man maa ki ay dara Mboup man malien sénégalais la Mali laa juddu Mali laa yaru sama sant mooy Mboup sama tudd mooy Kya Aidara bi sama rawaane moo sant Aidara tamba bambi Aidara bani kuréesi ban asmuka man rawaane jullit laa yore waaw avant liggéey fétiche laa defoon arrêté naa ko léegi ça fait un an et liggéey fétiche ma ngi sant yàlla subhanahu wa taala bu baax a baax mais su ma ne liggéeyuma liggéeyatuma liggéey fétiche comme ñu nekk liggéey fétiche tam ma bëgg wax tam kokkali ñoom tam nuy génnee si déedéet man yàlla ni mu la bind loolu la nga nangu léegi man kii ay dara bu mun na faju dof comme sama bis fet bi dof mu ñëwoon fii day saani lekk yi day def grimace yi mun naa ko faju mënuma faju dofu bu tox yàmba ba mu dof munu ma ko faju dofu mu toxu drogue mënu ma ko faju dofu nit doomu aadama moo ko def mun na ko faju dofu yàlla subhanahu wa def mënu ma ko faju nit am feebar hémorroïde mën na ko faju nit am problème euh, bopp métti mën na ko faju nit am problème biir mën na ko faju nit am euh, ga doo mu ñëw mu dem mun na ko faju yi Morick yëpp mun na ko faju papa ni ma def bare na trop trop trop man de ma dëkk euh, Nord Foire si car rapide bi côté car rapide bi laa dëkk Nord Foire man kii ay dara bu sama numéro mooy 78 630 47 00 man maa ngi fii maa ngi sant euh, sama mbokk sëriñ yi yëpp maa ngi sant euh, lébu yi sant sant kii kontaan bu baax ba parce que. su nga ñëw dëkk jàmbur mu nga bëgg def dara si dëkk jàmbur il faut nga ñëw fekk nit yi nekk si dëkk bi ngeen nekk si dugg benn buntu génn benn buntu. waaw maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala bu baax ba ma ne awuzu billahi mina shaytaani rahim maa ngi de eh, dàkk seytaane sama waxtaan bi sant yàlla subhanahu wa bu baax baax di ko gërëm yàlla subhanahu wa bi ma bàyyi ba fet bi mu jàll sama kanam ba fet bi mu commencé itam toppatoo lébu yi nañ ma bu baax baax. El Hadj Ibrahima Dieng moom papaam ma doon grand sëriñ di Dakar moom tam doo moom tam mu doon grand sëriñ di Dakar moom dimbali na ma bu baax baax macha allah maa ngi ko sant di ko gërëm ñun malien ke ak ñu nekk fii ñu sant yàlla moom lay reconnaître moom mooy grand sëriñ Dakar parce que lu tax moom euh, ñu dugg ñu si benn buntu génnee si benn buntu dimile ñu. waxtaan naa ko ñuy waxtaan lu neex waxuñu ñi malien yi la Mali lañ jóge ñuy dakaar nee ne ku fanaan fii trois jours dakaar nga xam yow lébu la lébu la nga bokk waaw na surtout nga doon sëriñ nga doon sénégalais malien yoo kee kenn gënu la fi ñun ñu ngi ko sant bu baax baax di ko gërëm loolu dimbali nañu yàlla subhanahu wa taala li mu bëgg yàlla mu may ko ñun ke mali ñi ke ñun moom lañ topp papa Kourouma Faye tam jàppale nañu fête bi depuis commencement bi ba mujj bi bu terminé bi ah, yàlla subhanahu wa taala mu dogal ko dafa dem voyage mu jóge Amérique dem Mauritanie yàlla mu def euh, empêchement mënu ñëw parce que maladie la mu yore nit feebar mais doomam Aliou ñëw na si place waaw moom tam sonn na si bu baax ba depuis bisu fête bi ba tey loxom taxawu tankam demum taxawu wa chaque jour ñi ngi ñew suñu kër di jox ñu ngi santi papa ko ma fay tam bu baax ba liggéey mu def yalla subhanahu wa ta'ala mu fay ko ci barka alquran ni mu bëgg yalla subhanahu wa ta'ala mu may ko ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yag yag fi ni ko gis xam xam papa hmm? kuko xam rek moko xam kuko xam xam ko xam-xam su nga ko xam rek sa morom xam-xam di nga ko dimbale aduna dimbale kessela ñun ñi ngi santi ñom ñep di leen gërëm contane bu baax baax kilifa yi nekk Nord fa maa ngi leen remercier bu baax a baax comme Dage Dage nduur maa ngi ko remercier Papa bu baax a baax dimbali nañu ci fête bi sonn nañu ci fête bi tànk bi taxawu loxo bi taxawu ñu ngi ko remercier ñu ngi remercier benn Serigne tam Papa Serigne Ndoye Ndoye tam loxo mu taxawu tànk mu taxaw ci fête bi ñun ñu ngi remercier eh, eh, service d'hygiène seen patron tam loxo mu taxawu. tankam taxawul ñi ngi mess ñom isa jawara wagge ñom yeb ibu Kan Konkan ñom yeb ki ki tankam taxawul loxom taxaw mu ñuy wax yeb dafa bare bare na wa nor Fari solo na ci fête bi mhm, seen loxo taw tankam taxaw ñom ñepp la nuit gouvernement Macky Sall ñom Isma Dioum ñom Bara Sow ñom ñepp ñew nañ seen loxom joxna seen tank joxna ñom ñepp dimbal nañ ci fête bi ñi nuy ñom ñepp Yalla subhanahu wa ta'ala ñuy bëgg mu may leen ci barka alcorane léegi yow résultat bi nga doon xaar ci sa cérémonie bi. Euh, am nga ko walla amoo ko. am naa ko maa ngi sant yàlla bu baax a baax papa parce que lu tax ñun dañoo defoon suñu fet bi ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu bëgg yàlla mu may ñu ko ndam. yàlla tout le temps mi ngi may ñu ndam parce que yëpp euh, su nga xoolee papa xam-xam li nga xam rek la mais xam-xam su nga xamulee di nga sonn papa ñun ñu def dañoo gëm suñu bopp. dañu gëm gëm suñu bopp parce que tout dañuy def ñun duñu dem taxaw di ko wax ni non non ñu recherche ñu def xool def xool def xool bu baax ba dugg si àll yi dugg si ndox yi yow mi sax topp nañu ñu dem ñu dugg si àlla bi dugg si ndox bi xool su suuf yi ñuy wax est-ce que dëgg la ñoom ñu wuyu suñu waaw suñu def yooyu ñoom di wuyu suñu waxuñu lii mooy am lii mooy am waaw ñun ñuy gis incha allah si kàttanu yàlla coow yi bare dina wàññeeku si incha allah si kàttanu yàlla wax bu sew yëpp nekk si gouvernement yi wax bu sew yëpp dina am mais wax bu seew incha allah si kàttanu yëpp dina tëddee incha allah si kàttanu yàlla ñu ñuy gis Macky Sall dina am deuxième mandat. ñun ñuy gis rek lañ wax ñun dañu gëm suñu bopp incha allah waa Sénégal ñu ngi fi ñun ñu ngi fi ñu ñaan yàlla subhanahu wa ñu bàyyi ko fi gudd fan ak wér ñu xam malien malien yi ñu am ñu caaxaan. li gëm suñu bopp lañ def. Mhm. léegi est-ce que révélation yi ngeen doon def. Mhm. opposition bi. Mhm. ban taxawaay c'est-à-dire noo noo gisee opposition bi. opposition ça veut dire quoi comprendre boobu. <clears throat> contre pouvoir boobu. ni ma gisee rek daa xam dëkk yëpp ak <laughs> nit yi am kii bëgg ki bañ. est-ce que est-ce que ñaan yi ngeen doon def. gis contre pouvoir. waaw waaw gis nañ ko. incha allah si kàttum yàlla cooy cooy wax bi si wax yëpp dina tëddee papa yëpp dina tëddee. incha allah même gouvernement yi wax ni Macky Sall def na ni ma ne papa nit mënu jël yëpp dëkk si gouvernement nit yëpp mënu dem si port nit yëpp mënu doon ministre. ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala rek ñaan yi ñuy def coow yëpp dina tëddee wax yi dina wax wax yi dinay bare coow yi dinay bare mais yëpp dina tëddee parce que ñaan boobu leen def futine futine bu ñëw fan lañ futine jóge lees laawo sud laawo nord laawo yépp lañ ñaan yàlla subhana taala futne fu mu jógee yàlla subhana taala mu tëddee futne bi yépp moo tax ñu doon booloo ñaan même ku ñaan yàlla subhana benn rek si si bi su ngeen doon booloo ñaan ko yàlla dina la wuyu si plus que yow kese. Mm-hmm. Mm-hmm. yow kilifa nga. Mm-hmm. porteur de voix nga. da nga représenté benn communauté bu mag boo xamante si biir Sénégal. léegi ban appel ngay lancé. Euh, ñi nga xam dañuy wàll di ñaan si wàll bi ngeen def nii. ak ñi nga xamante ñoom la ak lan nga leen di ñaax lan nga leen di digal même mm-hmm. lan nga leen di digal pour ñu comporter wu ko wala ñu mel noonu mm-hmm. pour Sénégal mën a dox ñun ke papa depuis commencement man ke ay daram bobu ñu ngi ñaan man ak sama mbolay ak sama mbokk yi ak sama papa yi ak Serigne yi parce que Serigne Dakar yépp sama papa la parce que ñoom ñoo ma mag am nañ doom ñu mu ma totoolu man nit tout le temps ma wax fu nga respecté sa supérieur di nga am yàlla subhanahu wa taala dina ko may والله بالله سبارك القرآن ين سنو سرني مالي ينكفي كلفة ينكفي يوم خم يتشاخن أمنا نسرني أم فتش فتشير لا مي يوم رسبنا يا الله سبحانه وتعالى دنيا ما يجبر جامون دنيا وقت نيجمون دعيرك لا يبغى يا الله سبحانه وتعالى لا جنا بقو كده فن كده فدول نيتوك نجيل القرآن ديكو أبي فكنا نبغى يب دودعه وان ينجم سنو باب وان سنو جانغ سنو يان وال القرآن دنيا يان وال خم خم بنيون suñu ñaan wàllu xam-xam bu ñun ñu ñaan wàllu xam-xam alquran ñu dem yëpp lañ lammatu ñaan waa yàlla subhana taala mu def jàmm si dëkk bi man maa wax wax waat allah si katum yàlla papa dëkk bi dina am jàmm coow bi coow bi bari na si Macky Sall ñun dinañ ñaan lool laa wax man descendant fi Diabaté la fi Diabaté moo nekkoon si almam Samadou Touré almam Samadou Touré moo nekkoon si pouvoir mu wewul benn dëkk mu ne lag nekkoon ak kri sama maam maam tam moo waxul kenn waxul waxu géwél nee ne rek Samori Touré rek man tam loolu laa man tam mu xam ma keneen dee wax mais man tam Macky Sall rek laa wax tout le temps ñu nekk yaa ay dara bu tout le temps yow Macky rek la nga wax yow du wax ak keneen mais man sama descendant man descendant Modou Fidjian Diabaté la Modou Fidjian Diabaté ni mu def loolu laa bëgg def papa su ma ko mënu def ma def ko moom ni mu def waaw su ma ko mënu def ma def ko ma mënu def Modou Fidjian Diabaté tudd mënu réer adduna bi. mënul réer parce que moom buur mënul réer moom buur la doon collaborer. très bien comme sama maam Matam mu defoon. moo représenté buur voilà sama maam Matam loolu la mu defoon. ma nekkoon si Samori Touré man tam ma nekk si Macky noonu la waaw su man waxuma géwél le waxuma keneen ma ne Macky rek dëkk mu am jaam. tout à loolu laa wax dëkk mu am jàmm incha allah papa si kàttu mi yàlla dëkk bi dina am jàmm coow yi coow yëpp dina tëddee gouvernement wax wax yëpp dina tëddee ñu ki ñaan deret du tuur nit du dee comprendre na du déedéet du dee dee yi bari na taay bale kilifa yi dimbali nañu si boobu ñu am nag yi dem ñaan yàlla subhaanahu wa taala def na safara deret yi tuur tuur tuur tuur yi day day day day ñu ni dina ñaan yàlla subhaanahu wa yàlla subhaanahu mu safar yépp ci barka alquran mm-hmm. incha allah taaw tam su mu ñëw ni mere mere mere tam loolu lañ ñaan ñun dëpp ñu ñun dëpp ñu mm-hmm. parce que instant bi du instant dëpp instant bi ñaan yàlla subhana taala mu wàccal la yërmandem moment boobu lay nekk nekkuñu ñaan yàlla subhana taala def ndépp rawaane yi wàcc defuñu loolu dañoo def parce que instant bi ku xam sa bopp ku xam-xam-xam ne na ko xam yo doonu na ko bi du instant dëpp bi ñaan yàlla subhana mu wàcc yërmandem parce que instant bi yàlla subhana taala nawet yërmandem mu wàcc ko jàmmam mi nekk susuf loolu la ñaan yàlla subhana taala taw mu ñëw mu mu ñëw mere yàqu-yàqu yi am yàlla subhana taala mu def yàqu-yàqu yi am mu dindi ñu ñaan yàlla subhana taala loolu coow yi nekk Dakar ñaan yàlla subhana taala coow yi sedd maa ngi remercier sénégalais yëpp surtout sénégalais yëpp nekk dakaar yi nekk feneen fépp maa ngi leen remercier parce que man wax na chaque jour man sénégalais la saint-louisien la man sama wolof la maa ngi remercier waa Mali yëpp maa ngi remercier Afrique yëpp maa ngi remercier dëkk bi yëpp àdduna bi yëpp laa remercier international fépp kilifaam bi nekk ñu doon présent rek suñ ma laaj kii ay daram bu rek man mun na wax mais ñeneen mënu ma wax loolu parce que sama maam maama taa deful boobu. maa ngi wax président Macky Sall ñi sonn si moom mu sonn si ñoom ñi sonn si moom hmm? mu sonn si ñoom parce que ñun ñëpp ñu nekk fi ñun yëpp suñu kilifa la parce yàlla si wa moo ko teg fii kenn mënu ko dindi fii. Bispo yalwa souban nata ane mwou din di fi, bispo mwen mwen din di fi. Seri mwen mwen mwen mwen din di fi, wak mwen mwen mwen din di fi, chow mwen mwen mwen din di fi. Pase yalwa souban nata la, ni dounyon dougere, kanè mwen prezant la. Yalwa mwen kotek si yara mam, yalwa souban nata la mwen kotek fi. Mwen yi wak tan prezant makisare koukou, gistan mwen djotol ko, ni sou nan si mam, mwen sou nan si nyam. Ni sou nan si mam, mwen sou nan si nyam. Ni sou nan si mam demou, mwen sou nan si nyam tey. ñu wax si moom sono si ñoom bu baax ba mag yi mu gestu si ñoom parce que àdduna ak am naa nit si sonn na si rek nga sonn si ñoom parce que nit si sonn na si yow yow sonn si moom loolu baaxul loolu ma gis na loolu si côté tuuti loolu neexuma waa côté boobu maa ngi waxtaan ak moom si loolu ngi sonn si ñoom mu sonn si moom loolu laa bëgg bu baax ba mu def loolu mu gestu ngi sonn si moom mu jël si ñoom mais ñi defu dara tekk yu dara. ñi nekk si réew bi di wax rek di wax rek mu jël ñoom ñu di teg ci kaw mu dindi ñoom ñu sonal si ñoom mu gëstu si ñoom wasalaam.